baol info point net ay journaliste yu xarañ te mën seen liggéey jàngoroy coronavirus ji nga xam ne jamono ji moom mooy lëmbaaje àdduna bi fii ci Sénégal ak état d'urgence couvre-feu bi daan nay tax ñu bare bare ci askan wi commencé am ay jafe-jafe ci seen wàllum dundin rawatin nag koor gi nga xam ne moom mooy daal di dëgmal mouvement bi di caapi en avant nekk fii ci commune bu Bambey ñoom nag bankuñu seen loxo benn yoon daan nañuy def ay jéego yu am solo jënd ak dundu jëmale ko ci askan wi ki nga xam ne nag moom mooy njiitul boobale mouvement di Thierno Ly directeur technique de la société de développement agricole Sénégal di SODAGRI moom ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci boobule mouvement daan na ñuy génne nag koppar yu bare bari jëndee ko ak dundu daal di ko yóbbu ci préfecture bu Bambey ya la nga xam ne moom la ñu jënd ci ak dundu ceeb la ak diwlin ak suukar ak kafe Touba loole nag yokk si wéy di sensibiliser ñi nga xamante ni ñooy askan wi li nga xam ne moom la waa kër docteur daal di digle mouvement bi di caapi en avant nekk mouvement boo xamante ni bu ràññeeku la loola ci biir loolu nag Thierno Ly mi nga xamante ni moo jiite boobule mouvement daal di jaajëfal bu baax a baax mboolem membre yi nga xamante ni ñoo si nekk. Baol info ay journalistes yu xarañ te mën seen liggéey.